mi midi weesu ay simili rek ci chantier bi nga xam ni moom moo war a amal bibliothèque bi dajale yenn ci mbindum Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasool ci naaj bu tàng bi Touba jamono ji tàngoor wi egg na ci ñaar fukki degré ak juróom-ñett chantier bi nag fekk nañ fi ambiance ci barab bi lu war a jege téeméeri nit ku nekk am foo féete ngir coulage voile bi nga xam ni moom moo féete ci penk bi daal di mën a mat. Eh, yaa ñu fekk tey ji eh, ci coulage voile côté est bi. moom la ñu def euh, coffre nañ ci vingt 24 mètres euh, fas yéene ko kuule tey jii. voile soo ko déggee mooy mur boo xam ne rek dañ koo sol ci béton ak fer ba mu sës nga xam te ni moom moo jógee ci sous-sol bi loolu moo ko déggee moom mooy voile. 12 tonnes ba 13 tonnes ci ciment dina jël aussi tamit euh, adjuvant yi ñu ciy def ak béton suuf grain de riz la ñuy jël muy 0,3 bi huit ak 8,16 ak sable. pour am dose 350. bile activité laaj na ñu ci jàpp loolu sax moo waral dikkug personnel boo xam ni dañuy ñëw ngir teg loxo ci liggéey bi. dañuy déglu techniciens yi ndax ku ci mel ni ki ñu ci teg muy techniciens yi ak ñi koy jàppale ñoom li ñu soxla ñu def leen la ñu defal ndax bu ñu njëkkee ñëw li ñu njëkk wax mooy barab bi dafa xawoon a bëri ay gravats yu fi nekk ñu ñu di jëlee fi mbooyam luy bant pour aérer espace bi waaye wàllu joxe suuf ak béton ak ndox xeetu apport yooyu nga xamante ne bi techniciens yi mën defal ñun day mel bu ñëwee liggéey la mbooloo mi nga xam ni dañoo ñëw ngir jàppale ñi nga xam ne naka jekk dañu doon liggéey ci chantier bi mbooloo moo xam ne ñu ngi bàyyeekoo ci cellule daara Hizbut Tarqiyyah yii di Touba ak Dakar war a jege juróom benn fukki nit loolu sax moo tax ba ñi nga xam ne ñoo fi nekk daal di xalaataat ngir organiser liggéey bi. soo xoolee ñi nekk ci kaw tout le temps di sol béton bi ak ñi tiim yore vibrateur yi ñoo ñoo spécialité boo xoolee na ñu ne ci ginnaaw yor bu rëdd yi am na ku leen di guidé koo xam moo leen di wax ñu natt nombre de brouettes yi li ñu war a def ci biir bétonnière bi am na keneen ku tiim koo xam ne mooy natt ndox mi ñooñu ay spécialité mais ñi nga xam dañoo ñëw pour soutenir nu ñoom ñoo yore brouettes yi di pousse am na ku leen di wax yamaleel fii bàyyi li sotti sotti ñu door a mën a liggéey. tàmbalik liggéey bibliothèque bii nga xam ni dañ ko jagleel yenn ci mbindum Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasool mu ngi amoon ñaari fan ci weeru avril diggante bi nag Hizbut Tarqiyyah mi yor liggéey bi. am na jumtukaay yu am solo yoo xam ni mu ngi koy teg ngir màndarga lekk bëgg-bëggu xalif général des mourides